xam ay mbiram day jox rendez-vous du du du du du du du ñëw. salaamaaleykum. waaw Thial. Eh, père na ko waa réew. waa Thial ngoog waay. Eh, père bëgg naa de. toogal toogal na nga def. père na nga temps bi toogal nii am nga jàmm waaw alhamdulilah père eh, fekkee naa de waaw xam baarikàlla yaa ngi na nga def eh, booy moom xanaa dafa nekk ci gi waaw waaw waaye booy bi bàyyi ko mu tudd rek waaye <laughs> man numbe la bàyyi lépp jàmm sant yàlla na nga def booy gëj naa laa gis xanaa da ngaa nekkoon sa sa kër ga non père maa woon Gambie sama Thiès boobu noonu ñu rayoon naaru libanais yi Thiès kan la mooy naaru libanais bi ñu rayoon fii ci tali wa waaw ci laa dama woon Gambie dama fa yàgg sax ah may dem fa la moom fañ la fañ la yóbbu bi yoon sori na de fa laa nii ah oui yaa ma a xam da mbaa yëgul ngi ci dëkk bi non instant dama dawoon génn parce que benn thèse bi war na jeex quoi parce que loolu dafa yàgg quoi mm. gars yi fàtte nañ dossier yi ah fàtte fàtte nañ <coughs> ah waaye man de da xam naa ah cal cal léegi cal te nag yow tamit yow xam nga ba koy def ba léegi yow ba nga koy def man suma la nga dawal welo welo rek laa wax de birig doo ko jënd moom daal xam naa ne yow boo ko defee moom di sin tux moomu di leen tàqaleeg seen sago moom di ko ci jënd ak ak doom yooyu ngeen ngeen dugal seen suufi làmmiñ yi moom moom dinaa la yooyu moom doo ko manqué ak seen solto yii gisuma la nga def ci dara ah ah ba kaso yi Sénégal yëpp nga bëgg koo wër visité ko def ko hôtel kaso yi duy hôtel jël bàyyil jël mi ngay jël nag yow tamit wax dëgg yàlla père wax yëpp ah. dëgg la parce que bi ma nekkee fii Sénégal Thiès moo mosaan am daan nga ma taxaw. ah waaw léegi nag dinaa la taxaw ba mujj gi dootuma la mën a taxaw. léegi nag problème bi lan la. waaw lii weeru koor la. waaw dama ci bëgg a profité occasion jégalu yàlla suñu borom. waaw parce que man père damay bëgg a bàyyi mais man su ma sàccul day mel ni sama day mel ni sama bopp day toj maanaam bu ma gisee lu war a dee nii te rey ma ko père man duma am jàmm. sa bopp bi mooy metti yi nii nii. waaw kii si dama dem reylu ko pour maanaam su may def loxo ci poos doo ma mën a yëg cër laa koy def yóbbu ko. gisoo loxo bi sidit di gisoo. gis naa la. kii maanaam loxo ci poos quoi maa ci maa ciy ah. laas. luy laas. maanaam damaa tàng ci loolu loxo ci poos nii. doo yëg ah da koo mën dama koo mën. ah booy di nga mës a dugg di nga fa mës a fekk jaam de. Ah. am na ñoo xam ne seen i poos nii bàyyi wuñ ko noonu dañ koo miine de. man daal boo gisee ma ñëw ci yow dama gis ni ku jege yàlla sa borom nga te tëdd naa ci biir nelaw suñu borom xamal ma ne ma yow war nga maa mën a dimbali te yàlla rek tax. parce que yow nan la nga nan nga bëgg ma dimbali la. wax ji nga ma wax nii wax nga ma ko téeméeri yoon ak juróom fukk yàlla wan na ma ay mbir ki yow war nga maa man a dimbali mu dimbali naa la façon dimbali bu ne léegi sa lastu dimbali bii li ngay wax laas laas dimbali bii lan la. man dégg naa. Hmm. am na benn booy boo xam moom moo ma tekkal si yow ne ma naa ñëw. waaw parce que am na benn papisco bu tudd sëñ Fallou Rahman. oui papisco. benn maara borom kurus. waaw. sëñ Fallou Rahman waaw maa moom rek mu defal may ñaan mu dëddale maa moom comme ni xam naa ne mën na ko quoi parce que yàlla xamal na ma loolu ci yow baax na baax na ko toppatoo hmm. dinaa ko toppatoo woo la naa ko sa kër gi da nga ko doon liggéeyaat ni kër gi a ah, da nga fee gëj rek <laughs> mais fer yi pour noy war na mën a continuer yii nii waaw mën na damaa bëggoon nu daggal ma ko de mais dal bi moo faible quoi waaw épisode huit lañ ko kuulee ah mosoo ma koo wax de. gis nga feeree ne dafa xut importe bi ngay ut. importe et puis nga def ko fer douze parce que lii fer de huit la bu tawee nii rek bu dënoo rek. mën na sa waay lii jiitu na sa juddu. waaw moom laa lay wax dafa lekk fii dafa jege géej gi per dafa li ma la wax lii wóorul sax man maa ñëw dem. lii yàgg na fi musul def dara. lii wóorul bu tawee bu melaxee mun na wàcc sa kaw xam naa li ma lay wax utal maçon mu defaral la lii. yàlla suñu suñu dernier bi ñu tëdd feer yi moo wàcc suñu kaw dal bi maa yox ah léegi ma jaaral fi kañ naa la woo. père dafa lu gaaw. dinaa la woo. booy candee la. xanaa ko kii. soo ma dimbaloon fii ak ndogu mën naa dem ci kaso parce que duma ko tay loxo poos du ma ko tay de. dama dinaa la woo. waxal mu dimbali ma. waaw baax la jaay waaw waaw. ci moo njaboot dëgg dëgg dëgg dëgg ngay bëgg a dee xamul lu ko dal ah wax ak magum jëmm li wax ak man ba noppi li ngay wax ma lay woo téléphone nga tëj tëj tëj waa ca <laughs> kay faire huit na ma illaha illallah candee la candee lay doomee raam dëgg-dëgg e eh, manumbe manumbe jógal jógal jógal ah, day ndong waaye man doo dabal ma candee la sàcc na sama portable bi e eh, jógal waaye yow bàyyi fudd bi dabal ma candee la dabal dabal ma ca la nga ne ko sama papa nee na nga abalaat ko portable. waaw man damay nelaw damaa sonn. jógal yow. waaw damaa bi. waaw lu sonn ma jógal ma dabal ma ca la. boobu xam nga kuy nelaw quoi man. dama man jógal. baal bu ma la yónnee ngay kii jógal jógal te gaawal dabal ma ca la. waaye dabal ma ca la yow. ah ma ca la wàcc na daal bi ci sama kaw de. sama boy bi kii kii laa ay kii yàlla may na ko sàcc dëgg dëgg dëgg dëgg ay yàlla mën a maye.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 59 75. Notre site internet www.cefas-du-6sénégal.com. conférence laa jóge conférence lan. ma conférence fii. conférence yi ñuy def ci ci ci koor yi. waaw bul fa demati. pour pourquoi. booy dem ngay jël laaj ma door ma jox la bul demati ci conférence. non non duguma de duguma de maa taxaw fee déglu. li lay teree déglu laa la dugg laa xamul. parce que nga sol yére yu baax te dugg. ki waxtaan. ni sama morom yi waaw. sa morom la. waaw moomoo xam nga moomoo. waaw moomoo ma dëkk fi. lan lañ doon waxtaan ca conférence ba lu moomoo wax. ma loolu waxtaan ci diine. moom moom moom waaw. waaw ma kook sama la. waa léegi nag bu seetee sa morom la. waaw. Hmm. ma bi weer xaaral sax ma dem xool. waaw ma ma ñoom ñoom football. waaw ñoom fi. Hmm. mu dem jàng. ñëw. Hmm. kaay kaay yëw muy wax. waaw boobu yow. waa da ngeen daan continuer di football moom mu ba football ba jàngi jeex na. waaw. waaw boobu di wax gaay gaay di jooy. waaw mën a gars yi ñoo la booy moomoo de daa jukki la ca alxuraan ba rek tegal leen ko waaw waaw yéen la nga mënta jukki man mënuma koo jukki ak ñu bare ñu mel ni moom moom daa dem jàngi ko mën koo jukki wax leen ko gaa naa ko Oustaz Modou Fall man man ma wax man la mu du momoo Oustaz Modou Fall nga naan momoo walu wal wal bu ko waxati loolu de loo koy woowe loo koy woowe waxati loolu daa jàngi woon nit bu xam nga ñun Sénégal dañoo defe ni ku ñu footballandool fu ñu fuuy non fuuyul ñun Sénégal dañoo def ni ku ñu footballandool warta am xam-xam ku ñu footballandool warta mën a faj ku ñu footballandool warta mën a am xaalis dañuy gis jékki-jékki nit am alalam ñu naan pourtant fii la daan aw di ñaan kuy ñaan warta am alal moo nga sol nag nga dum dalaawam woon ay ko nangul diineem daa jàngi woon na ay affaire yu man de dama koo bëgg ah dama koo bëgg de wax a affaire yu de. wante ustaas moom wax dëgg yàlla ay nit ñu baax lañ ay ñu baax lañu waaw te boo demee ci conférence ba na ngay déglu. ndakata ndakata gars yi am na ñoo xamante duñ dem safara duñ dem àjjana. fu ñuy dem. duggan safara àjjana laxlaaf. lax la loolu lu fa am. bon du tàng du sedd. ah ah, ah xam nga ne mu ne. salaamaaleykum. <laughs> ay waay waay waay waay waay dinaa déglu ne. parce que yàlla na nga def. mbaa yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax mbaa yéen a ngi ci jàmm rek. ñu ngi sant suñu borom père naka koor gi nag. ça va ngi sant. baa tàngaay bi sonalu leen rek. ñu ngi sant yow la kan. sant man la Tuku Bamba Ndiaye. Tuku. Tuku Bamba. waaw. ñànku naka mu. waaw rek. naka climat mbaa woor nga. <laughs> ñànku dee ngi nii rek. <laughs> mbaa du fii nga dëkk ci koñ waaw fii laa dëkk si koñ bi mais. Oh. mon père. waaw sànq ca Ndéla daf ma xamaloon dafay ñëwoon. anamu. waaw moom moo a yabal sax nag. waaw lu wax. parce que na jaar na fi mais dafa am fi faxas ni nii nii. xelam waaw waaw waaw man samay mbir faxasuwul. waaw nee na waaw ma doon wax ci mbiri bâtiment bi. Hmm. ndaka da man na ma waaw. ci biir bâtiment boobu. ba muy dem ba koy wax noonu noonu. si la faxasaale affaire bi. waaw mais nee na ah. na ci lim la waxoon ci sëñ Fallou bi noonu. waaw waaw baax na ba agsi noonu xel bi dellusiwaat. waaw mu daal na ñëwaat. moom nag bu toogoon minute nag naru tawoon a saw naru tawoon dem duus. waaw la xalaat nag. waaw waaw Ah. jërëjëf yéen a yéen ay ànd. waaw ñun ñooy faral di ànd. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw naka seen hôtel yi. ñu dem ak a ñëw. waaw waaw jàpp leen ko foofu rek. mais yéen a ngi am jàmm baax a baax. waaw waaw ana Manumbe moom. ñëpp a ngi ci jàmm. alhamdulilah ñëpp a ngi ci jàmm. waaw waaw. waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf waaw. tukusu waaw. numéro amul benn numéro bu ma kii foofu noonu. sawaay quatre heures non sànq ba may ñëw dama ci defoon sama carte man. non non mënul nekk demal mënul nekk boo demal demal demal waaw demal. mënul nekk demal. demal demal eh, waaw fi ah, dala. jib de du jib de waaw mais père wuy ma. Tendeela. xam nga mooy Tendeela man li ko Tendeela yónni téléphone bi. yow lu tax lay diggee ci booy yi. teg téléphone bi mu ne ma bâtiment bi eh, eh, eh, dal bi mi ngi bëgg a daanu ndax feer yi danoo xamaat. Kenjel daa ñëw. ñëw na fii ni moom bu bu sàccul bopp bi day metti naa ko dimbali yóbbu ko sëñ Fallou Rahman mu faj ko. parce yàlla soo ko yóbbu sëñ Fallou Rahman mooy laxas téléphone. mu sàcc foofu voilà daam kooku amul koo kii kii xam su dee su dee yow xam su dee àjjana xam la moo ko ne la gën a àjjana sàcc bakk walaay. ku fay dem di sàcc. ak Kenjel ten tey nee la xam kilim la def fii kilim. nee na ma ñoom ñoo rey tubaab bi dee woon. moom mii la sax naar moom mii la naar bi moom mii moo ko dóol ay lëfaal dóol ko ba naar bi naag wayat naar bi yoroon. maa nga boo ko moytuwul yow dal yow lay wàcce. ma waaw maa sama àddina. sequma mm. tendee la daala daala tendee la bu ca gën ma lekk ma xam ma li may gis ne. Mm. tendee si jaale mbedd mi. Mm. ma sënk. lekk. nga jaar fi nawet ma ca des. moo gën de. waaw moo gën de foo ne benn programme fekk fa ca njël sama portable la foo ne benn programme fekk fa ca njël waaw lu tax ca moo xaja yam la day eh. day changé tout le temps un jéem mu jéeg ak soppeeku kon yow da nga koo ragal pas tellement nag tellement eh da nga koo ragal wala ragaloo ko waaw may ndax bu baax a baax yow boo ragal ca ndee la lan la yow amoon lu ñu sàcc di déedéet waaye mën na laa lay <laughs> Kenjel doomu laa la Kenjel eh. aywa eh, Kenjel ah waa koñ bi Kenjel la ñuy waatee fu ne nu ñëwee Kenjel waa koñ bi yëpp koo ci waxal mun a mun a yow ñaan ko est-ce que juruma la nga di ma nax. Hmm. Hmm. Poul. non sa xel mu yembee di mii ma jàpp ni dang daf la dal ma yërëm la ci est-ce que du wér nga ma koy nëbb. Hmm, non non bàyyi la parce que yow li lay li la arrangé wul xam nga ko. bàyyi bàyyi ma def la ma def. ma bàyyi la nga dof kon nag na la leer ne boo toogatee ak man na nga nitee. doo yow mën na de. waaw ça dépend ci gars yi la. waaw fi mu toll nii gars yi dañ la ni nga nite ci candee la. déedéet. lu tax te dofee ci man. lan lañ la wax. xam man. waaw man moo ma ma ma man moo ma sama bopp. waaw sama lappe ñoom ñoo ma kon sere. waaw ñoom seen neexee. Mm. ma def taat ne léegi def baal dem seen neexee ma foofu fii. soo neexee ma saakaata soo neexee ñu bàyyi ma ma ne ñoom lu leen neex rek ma ñoom ñooy diriger. puup ci biti. kan. Hmm. jékki-jékki puup. kala xaaral la ma def la. waaw ma def ko pay lus. waaw damaa dama fee fekk booy yëpp toog. Hmm. ma jël ma benn buum. Hmm. ba takk ko fële. ñëw takk sama bopp gis ma ndirim bi def taxaw ne naan kuy weel ku fóot ba pare bëgg a weel liñ wax boo yëpp di leetaan après. bu ma bu ma bàyyi mu lus ba sama anaconda na jaare fa taweeku taweeku bu. Ah, da nga xëcc nag. fa xëcc waa ndakar affaire sidit la. waaw da nga koo xëcc nag taweeku. waaw ah, xam nga xëcc dara. mbaa gaañuwul. te ngaa ne waaye après naa. Vito cocktail une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yëpp ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu sell te naturel. puy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh, oh.